Gambian si man la Antiem Seka of United Democratic Party maay ñaan Gambian góor jigéen mag xale ndaw na ngeen dem ngeen jëli seen péngu bi Covid 19 dégg la bente si réew mi te bente jógu fi soo gisee ñuy ñaax Gambian si génn góor jigéen mag xale ndaw élection bi ñoo jublu si la ñu ñëpp xam ne ne élection daje dafa am political rally si mbooloo la. campagne bi mbooloo la lu ñoo def mbooloo la fi mu nekk nii te Covid baa ngi fi te bëgguñ mu dëkk fi léegi nag maa ngi leen di ñaa ngeen dem jëli seen eh, péngu yi ñi nga xam ne jëloon nañ fausse dose bi nañ dem jekkali ñu jëlul nañ dem du dara Covid dafa réel mu si dëkk bi te may leen ñaan ne soo leen ko deful élection bi dina am gàllankoor lii gàllankoor bi su nit ñi feebaree dañ mën a sànni karta te loolu bëgguñ ko bon góorgóor leen ngeen dem jël seen péngu yi jël ko ni mu waree comme ni ko WHO recommandé